waaw comme ni nga ko waxee jamono ji ñu toll sax député yi ñu ngi foofale ci assemblée nationale gannaaw bi nga xamee nag njiit réew mi amal na ab décret convoqué eh, li nga xam ne kon moom mooy boobule assemblée ngir nag eh, ñu mën a amal eh, comme ni nga ko waxee séance bi ñu amal tey war cee voté nag vote projet de loi boo xam ne day modifier constitution bi lépp li ko wund nag moom mooy ñu daal mën a mën fee jëlee li nga xam ne moom mooy euh, haut conseil des collectivité territoriales ak nag li nga xam ne mooy conseil économique social et environnemental muy nag ñaari institution yoo xam ne ñoom ñooñu di autorités yi dañoo jàpp ne ay institution budgétivore la maanaam daal dañoo gis ne li ñuy yóbbu ci koppar daa bëri bëri lool lool lool lool kon ba tax na ba ñu gis ne daal euh, supprimer ko dina gën a tax rationalisation des dépenses de l'État boobu ñu wax maanaam dina leen ci jàppale muy nag wàññi bu baax li nga xam ne moom mooy train de vie bu bu bu bu état bi euh, loolu la ñu peut-être avancé comme argument mais euh, beneen côté da ngay gis ñeneen dañ cee gis ne euh, bu fekkee ne ñoom autorités yi loolu la ñu wax am na ñeneen ñu ci gis ne dafa am peut-être ay calcul politique wala yu ni mel yu làqatu ca gannaaw ndax ñu bëri gis nañ ne d'abord lii bu ko defee dafa bëgg a gën a may temps. Eh, ki nga xam ne moom mooy eh, eh, premier ministre am Ousmane Sonko pour ma gën a mën a am temps pour gën a préparer li nga xam ne moom mooy déclaration de politique générale d'une part wante d'autre part ñu ne pour éviter loo ko la pour daal effacer ko bépp bépp entrave boo xam ne ñi faree ci kuje gi coalition Benno Bokk Yaakaar ak yooyu dinañ ko ko indil quoi tey bu ñu ko dissoudre dissoudre tam li nga xam ne moom mooy assemblée nationale dina tax ba être Ousmane Sonko peut-être dootul am en face de lui ndax bu ñu ko defee kon ba am beneen assemblée bu ñu fal mu war a def déclaration générale bi ñu def ay euh, élection législative anticipée mu taxaw ci beneen kanamu assemblée euh, moom jamono bi ñu koy def tam li nga xam ne moom mooy conseil économique social environnemental du fi nekk euh, li nga xam ne it mooy au conseil des collectivités territoriales du fi nekk te muy yoo xam ne nag majoritairement membres yi dañoo bokk ci ancien régime bi loolu tam ñu xam ko day nekk ñaari institution yoo xam ne seen membre dañoo bokk ci li nga xam ne moom mooy ancien Euh, ancien régime bi loolu sax tax na ba ñu bëri jàpp ne est-ce que tey ñi nga xam ne ñoom ñooy député opposition euh, rawatina député Benno Bokk Yaakaar est-ce que dinañ jàllale bile projet euh, majorité waaw li xam ne moom mooy député waaw boo jëlee député Benno bi rek xam nga day nekk majorité waxantuma la yeneen député yi nga xam ne tam faruñu yeewi peut-être mën ñu leen rejoindre ci seen ñàkk voté boobu ak yooyu ñu bëri daal jàpp nañ ne tey est-ce que euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi dinañ jàllale dinañ jàllale boobule boobule projet euh, te it euh, li taxit man may yaakaar ne mën na am duñ ko jàllale imaginel tey ñu supprimer li nga xam ne moom mooy haut conseil des collectivités territoriales bi nga xam ne ma la ko sànq ay membres ancien pouvoir ñoo ñoo xam ne dañoo kii ancien régime ñoo fa ëpp imaginel ñu ñu ñu supprimer conseil économique social environnemental bi nga xam ne ba léegi itam ay membres ancien régime kon ay membres benn bokk yaakaar ñoo fa ëpp te imaginer ñu supprimer ñaar yooyu nara a supprimer tam assemblée nationale loolu tax na ba ma yaakaar ne man tey est-ce que ñi nga xam ne ñoom ñooy député Benno yi dinañ voté eh, bile eh, dinañ dinañ bàyyi bile loi eh, bile loi jàll waaw ah, am gis naa nag peut-être comme yor-yor bi titré na ne est-ce que député yi tey dinañ daal est-ce dinañ am sañ-sañu baare li nga xam ne moom mooy kii bi si jamono joo xam ne peut-être dañ ne yee ay institution business d'ivoire la jamono joo xam ne dañoo bëgg a rationaliser li nga bi. est-ce que député yi dinañ am sañ-sañ dinañ am fitu daal euh, baare euh, boobu la kii bañ koo bañ bañ koo jàllale mais comme li wax nag ci beneen wet ga tam ñee tam dañuy xool seen intérêt dinañ xool seen intérêt est-ce que tey bu supprimer ñaari ñaari ne moom mooy assemblée nationale kon est-ce que tey Benno Bokk Yaakaar dina amati poids dina amati li nga xam ne mooy landerneau politique bi euh, kon daal mu ngi noonu ak lu si mënti xew daal xam naa fii ak fii ak fii ak waxtu peut-être ndax affaire mën naa mu yàgg dinañ ci dinañ ci xam dara daal peut-être fii ngoon Oh,